président Macky Sall la ñu bëgg leeral nit ñi dama ni dama ànd ak son directeur de cabinet bi nga xam ne tey jii mooy le maître Omar Youm ma ànd ak moom ànd ak Alassane Ndoye Ibrahima Ndoye seede la si mu ngi toog le ministre Ibrahima Ndoye ak le maire Mamadou Thiaw bu taset ñoo ma jëkk a yóbbu ci président ma jàkkaarloog moom keroog bi ma demee ci président man naam jàppoon na ni damaa ñëw ci bis boobu pour rallier ci parti man la jëkk a jox kàddu ni ma monsieur le maire jox naa la kàddu yow laa koy jëkk jox bi ma ko joxee ma xamal ke ne que monsieur le président tey ñëwuma fii pour rallier ci parti dama ñëw tey pour ubbi la buntu Kayar li nga xam ne moo manqué ci Kayar des infrastructures bëgg naa nga def ci sa loxo néew ma nga def lépp waaye loo ci mën nga def ko su ko defee bu ma àndul ak yow waa Kayar nañu ànd ak yow. keroog loolu laa wax président fekk ñu ngi yor benn document. boo xam ni collectif des maires ñoo ko yor ñu jébbal ko ko mu ni moom mooy yóbbu document bi conseil des ministres taxawuñu ci document bi ñu ko jox muy benn jéego ci lu ñu bi jox ñaareel bi jéego bi ñu jëm référendum muy yónnee fi le ministre Augustin Tine mu ànd ak le maire de Xombal ñoo ngi nii toog ay dund Pape Mbouba ngi nii Augustin ni ma président nee xam na ni Kayar mooy sa parti waaye bëgg na nga ñëw jàppale ka ngeen ànd liggéey réew kon beneen jéegoo ngi noonu ñu ñëwaat fii mu ànd ak beneen yonent bi Thierno Alassane le ministre de l' énergie ànd ak Augustin Tine ak Pape Mbouba ak yeneen directeur ñoo ànd ñu ñëwaat wax laa même chose waaye man ma jàpp la ma waxoon rek ni leen bu ngeen demee la ma waxoon président tontu boobu benn rek la te ci boobu laa nekk mooy Kayar rek man moom la am moom a ñor parce que keroog wax naa président ni ko su ma ñëwoon si yow ni la jox ma xaalis nga jox ma su ma ñëwoon si yow ni la may ma oto nga may ma waaye Kayar gi nga xamante ni falaa laa juddoo fa yaroo mooy sama lépp moom laa bëgg mu développé bi mais soxla ma loo defal may dem man kenn. président ma ma waxeet la wax ma dégg ko gëm ko jàpp ko bi ni dellu soo fii en 2014 président man dugal loxaam ci Kayar waaye ci ban anam. président fekk ñun béykat yi béykat yi bu ma ko waxee damay bay moo tax ma ñun béykat yi mu wàññil nu semence bi subventionné lanu ko defal subventionné gasoil bi engrais bi wàññi arrêté bato bi nu mën di de terre bi deux cent vingt cinq deux cent soixante quinze ci tool yi sans benn frais. te bu njëkk ñu ngi doon jaayee 150 francs ak di fay frais yaay def frais yëpp nga jaayee 150 francs ci marché kon loolu beneen jéego bu ngi noonu ñuy waxaat ñun ay mool lañu ñu gis président de la république yabal fi son ministre Omar Gueye ñuy joxe ay moteur yuy jar 1 million 300 président ni boo amee 300000 ñu jox la 1 million. moteur bu jar un million trois cent kon def na beneen jéego li ma ko waxoon mu ngi koy def mu ngi dugal loxoom mu nommé Mamadou caw directeur exécutif bu PNDL mu ñëw fii tegal ñu xeer ci piste yi def 2 kilomètres 500 valeur am di 100 millions. bu ñu ko defalee président moo tax mu mën ñu kaa defal kon loolu beneen jéegoo ngi noonu kon loolu defe naa ni Kayar loolu war naa mën a tax ñu ànd ak président de la république loolu mooy jéego yi nga xam ni moom la président def ca la ñu waxante woon ca pale ba moo tax man ma def tey jéego jàpp naa ni monsieur le ministre tey wax dëgg yàlla boo demee di nga am loo nettali ministre conseiller defe naa boo demee di nga am loo wax journaliste yi waxi nopp ndax tey jii vraiment man sama xool dafa sedd guy dafa sedd guy ci population Kayar jéego beneen bi nga xam ni moo a gën a neex ci jéego yi président def ko jaarale ko ci ministre Thierno Alassane sal mooy Daaru Salaam diirab Daaru Salaam di Daaru Salaam mënuñoo am courant bu stable tey président jaarale ci son ministre Thierno Alassane ministre de l' énergie ñu defal ni poste courant boo xam ne ñu kay koy waaj ñu ngi koy tabax dem naa fa ba natt ka ba teg ko bagage yi ñëw na ñu ngi koy tabax pour Daaru Salaam kon loolu jéego la moo tax ma bëgg communicateur bépp nekk maron nun na ngeen xam ni Macky Sall lanu tey suba ginnaaw suba loolu nag firnde ji firnde ñi ngeen xam ne maa ngi yéen noo ànd def loolu dama bëgg ngeen féete bis bi féete bis bi mooy ñu dem ci une minute boo xamante ni président Macky sàll rek la ñuy wax rekk ba mat ab minute Macky Sall yàlla na fi yàgg te wér. noonu kat waaw waaw xeer gépp booloo nuy def benn tànk jox ma am bi Augustin dama lay jox am bi waaye bu ko fecci la joxal ma amu bi mu fecci amu bi nag jàmm rek la mooy li ci gox yi tey gis nga li mu gis monsieur le ministre ci yow la jaaxaan may des ndax vraiment vraiment monsieur le ministre sa taxawaay mat ndax li ma doon wax rek moom nga moom laa gis nga koy. leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam jiital ci nuyoo bi chef de village ak jaraaf kilifa diine yi fi nekk di beral nuyoo suñu xarit. muy Ndiassé Ka maire de Kayar yàgg naa wax ni ku sopp Macky Sall rek def naa la xarit donc Ndiassé sama xarit nga woon démb mais tey xam naa ni dina ñu xuus jàll parce que tout simplement li nga wone fii ñëpp war nañu ko gis te président dina ko gis incha allah ay quelques questions rek lay posé mbooloo mi yéen lay adressé wu de na ngeen ma déglu bu baax baax ana waa Ndiayène Sira ana waa Fandène déedéet déedéet déglu leen ana waa Fandène ñëw leen donc fi mu ne nii waa Fandène nekkuñu fi waa Ndiayène Sira nekkuñu fi waa Xombol nekkuñu fi ah Ndiassé waa Kayar ñoo fi nekk qu'il baax na lool président de la république xam ni waa Kayar ñoo ko teeru fii tey yàlla may ñu chance mu yónnee ñu ñu war a wax waa Kayar wax waa département bi dama leen di gërëm di leen sant di leen wax nii ki ngeen àndal yàgg naa di waxtaan ak moom avant élection locale mu wax ma ay wax yàlla def wax yi dara teggeekuwu ci waa Kayar ñoo ma tax a wu président bu waxee ak waa Kayar defal waa kayaar dina ànd ak moom liim nga sànq li président defal waa Kayar te am naa yaakaar ni am nga ci mbégte te waa Kayar am nañ ci mbégte. donc dama lay féliciter di la wax ni vous êtes sur la bonne voie mooy voie émergence Kayar Kayar bu émergencé mooy Sénégal mooy émergent donc vraiment dama lay féliciter di la gërëm di nuyu bu baax tous les maires du département ñi fi nekk di nuyu les membres du haut conseil des collectivités territoriales di nuyu sama sœur madame Kiné Tiné Ndoy di membre du conseil économique social et environnemental di nuyu sama xarit sama rak bu Ndiégène muy présidente du Petit Train di nuyu tous les responsables qui sont là qui sont là plutôt dont mon chef de mon, mon directeur de cabinet mon chef de cabinet monsieur le conseiller Lamine Ndiaye mon ami le conseiller du président Ibrahima Ndoye ak ñëpp ñi nga xam ni sans doute je vais en oublier ngeen jégal ma mais di leen wax nii dama am mbégte tey dama am mbégte parce que wóor na ma ni président de la République dina am mbégte parce que li mu engagé wu développement Sénégal bi mu laaj mooy mu am majorité assemblée nationale majorité boobu ñu ngi koy xaar ci mois de juillet juillet 2017 dinañu dem élection législative mu nekk élection yu am solo du élection caaxaan élection yu am solo la parce que ku gañewul assemblée nationale doo mën a diriger réew gañe na naam def na loo xam ni ci fépp biir Sénégal moo xam PUDC moo xam Promoville moo xam tous les grands projets structurants yaakaar naa président de la République li mu def Sénégal benn président mosu ko def donc loolu buñ ci d'accord ba pare des na ñu am ngor ngor parce que am na loo xam ne nit bu la ko defalee war nga ko dellu njukkal Ndiassé da nga ni jox na jox nga ma ëmb bi dinaa ko yóbbul président de la ëmb bi diis na parce que gis naa def nga lu am solo te yaakaar naa loolu lañ doon xaar ci responsable tey léegi benn affaire la bëgg a wax gis naa ni ici ce sont les jeunes qui sont présents ici ce sont les femmes qui sont présentes Ndiassé tu as une majorité confortable mais li ma lay ñaan déglu leen ma s'il vous plaît li ma lay ñaan mooy ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon nga fekk leen fii ñu war a ànd ak ñoom parce que mbooloo mooy doole ñooñu nekkoon nañu fii liggéey nañu. yàlla yow la fi teg président de la république nee na képp ko xam ni maire la bu fekkente ni nangu nañu ñëw nangu na ñëw accompagner ma na jiitu ñeneen ñi topp ci. lii ma lay ñaan nag mooy yow nga am xol téye leen parce que loolu le président bëgg bëggul bàyyi kenn gannaaw bëggul tuuteel kenn donc loolu ci lañ war a roy dema bi may dem élection président la République ma bul dugg élection mën naa leen ko wax ngeen dégg ko dama koy wax ci rajo bi mu ne ma bul bul dugg ci affaire élection ma ni si président la république dinaa ci dugg am naa yaakaar ni mën naa gañ mu ni ma non bul dugg ma ni dinaa dugg mais dama ni président bu ma pertee ki nga xam ne moom laa jàkkaarlool bu ma gañee damay topp ci gannaaw te ñi ma àndal ñëpp xam nañu ne loolu boo amoon damay topp ci gannaaw donc pour wax leen ni ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon aussi je vous tends encore la main nous étions ensemble hier je ne pas un je vous tends encore la main parce que tout simplement vous avez travaillé mais aujourd'hui nous devons nu C'est le nu qui est important aujourd'hui, ce n'est plus le jeu. C'est le nous, nous devons travailler ensemble avec le maire isi présent, engagé pour accompagner le président de la République, pour la population de Gaillard, pour le département de Thiès. C'est extrêmement important. donc di wax ñëpp nii tey mbégte am na mbégte bu rëy am na li ci des mooy ñu ànd xam ni ànd bi rek mooy tax ñu am li ñu bëgg maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf